aflon sunax fi yow lekk yàgg yow lekk yaa ma ko jalal la xewee nam li ma leel ku leel nga jàpp yonent bi bismillah ni na xol bismillah man aflon fafa doom ala joo yonent bi laay wayal tàggatul ko waajib papa papa kontaan naa ci yow sa moo ma booleeg nee na jàmbaar nga. bàyyi su nax si yow lekk yaa yow lekk yaa ma ko jalal ma leel ku mu leel nga jàpp yonent bi. bismillah. teet teet teet ni la ko bismillah. teet teet teet. papa doomu ala joo. eh yonent bi wayal. papa papa papa kontaan naa sa yaay moo booleeg yow. aflon sunax fi yow lekk yàgg yow lekk yaa ma ko jalal li ma leel ku mu leel nga jàpp yonent bi bismillah bu yees te ni la ko bismillah mana af moom fafa doomu ala joo yéen tamit laay wayal tàggatul papa papa papa kontaan naa ci yow sa yaay moo booleeg yow nee na